waa koñ ba xamante nañ seen biir waa koñ bi délégué ka ñuy délégué ca mag ñi ci góor ñi ci jigéen ñi koñ yëpp bu ñu dajee délégué ñi délégué ci commune bi. Mhm. commune beeg commune rurale yi bu ñu dajee seen délégué yooyu ñu tànn ki leen di taxawal ci département bi. je pense que ni loolu moo gën a jaadu mhm. parce que ñi ñu tànn rek ñoom ñoo fa daje mhm. waaye suuf ñii ñu koy defee ak ce système la man je pense que ni xiiroo ŋaayoo xuloo ak yu ni demee <laughs> d'accord ci loolu sax la ñuy dem defe naa ne euh, ut nga transition bu baax. Euh, xiiroo beeg ngaayoo bi euh, ci assemblée nga xam ne fa la ñu war a waxtaanee mbiri réew mi ndax mooy penc mi mais gis nga coow yi ci am fan yi déclaration de politique générale bi da ngaa war a ñëw du ma ñëw sa texte yi baaxul war nañ koo changer est-ce que véritablement war nañ si fii tey ci Sénégalu 2024 bii. franchement man jàppoon naa ne warul woon indi sax coow. Hmm. man loolu laa jàpp warul woon indi coow xam nga pourquoi. Hmm. Eh, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale am na manquement. bu ci am ci treizième législature bi la amee aussi parce que le président de la République dafa décider en deux mille dix-neuf supprimer le premier ministre. Mhm. bi mu ko supprimer ñu génne ko ci constitution bi ñoom tamit ñu suivre ci règlement intérieur bi génne disposition yi nga xam ni les dispositions afférentes en fait. Euh, mhm. au au premier ministre. mais il s'est trouvé que en décembre deux mille vingt et un su ma jumul. Mhm. bi président décidé ni day indiwaat premier ministre. effectivement dañu jëlaat la euh, processus boobu delloo disposition yooyu ci constitution bi mm-hmm. mais assemblée suivrul cette fois-ci mm-hmm. kon disposition yi nga xam ne moom la ñu waroon a jëlaat delloowaat ko mu dellu ci règlement intérieur bi nga mm-hmm. xam ne loi organique la ñoom la député yooyu deful te loolu nag responsabilité président Macky Sall la d'abord mm. parce que article 37 bu constitution moom moo waat ni danaa observer la loi te je ferai faire observer aussi la loi tout à institution bu toll noonu jalgatee yoon mais premier responsable bi c'est le président de la mm-hmm. république loolu moom moo waatoon loolu mm-hmm. ne serait-ce que mu fàttali leen ko nañ ko def mm-hmm. mais député yi nekkoon foofu yëpp aussi ci treizième législature bi responsable lañ ci tout le monde mais nag surtout le président de l'assemblée muy Moustapha Niass parce que loolu il lui loolu mu diligenté ko ak son bureau aussi mais malheureusement defuñu ko mais député yëpp mënoon loolu amoon initiative bi ne y' a problème def ko. Mm-hmm. au passage je salue véritablement wax dëgg yàlla taxawaay Mamadou Lamine Diallo. Mm-hmm. parce que moom bi ñëwee ci quatorzième législature bi moom saisir na mm-hmm. effectivement en fait l' assemblée nationale euh, le bureau pour wax leen ni leen y' a des problèmes nañ ko nañ ko réagir mais problème boobu quatorzième législature bi dañ ko doon. kon euh, président assemblée bii fa nekk nii bi mu jàngee règlement intérieur mu jëm ko joyanti d' autant plus que saisir nañ ko ci. bureau bi am nañ ci responsabilité. tous les députés yi fa nekk nii am nañ ci responsabilité mais le président Diomaye aussi am na ci responsabilité parce que moom it waat na article 37 bi dal ci kawam. trois mois yi mu fi nekk nii it mënoon na leen wax ne eh, joyanti leen mbir mi alors. je vois nag que vraiment euh, le premier ministre Ousmane euh, euh, monsieur Ousmane Sonko. quand même outrepassé na ses prérogatives. Mm. parce que il n'a à. fixer un délai à l'Assemblée nationale pour ñu joyanti le règlement intérieur bi. Hmm. amu ci droit amu ci sañ-sañ. mooy mooy mooy délai 15 jours yi mu leen joxoon ne bu ngeen ko defut dana dem barab sàngam defe ko fa. Euh, euh, mais kooku amu ci droit. Hmm. moom mooy kan ba war leen a wax kañ lañ koy def d'autant plus que moom kenn forcé wu ko délai. parce que li doon délai bi ci règlement intérieur bi génne nañ ko moom fi mu ne fii ba deux ans. bu ko neexee dem kon il n'a pas à aller à sur ce ton ni leen def leen ko. loolu première première erreur la deuxième erreur bi it il n'a pa à envisager aussi euh, une DPG mm-hmm. or de l'Assemblée nationale parce que la DPG est constitutionnelle mm-hmm. c'est la constitution qui le parle barab sàngam lañ koy defee la ñu wax kon moom warul envisager loolu parce que bu mu fàtte mukk ni mm-hmm. actuellement c'est lui qui met en œuvre en fait les politiques de la nation institution la en fait collégialement mhm. avec l'ensemble des euh, du gouvernement mhm. kon moom am na wax yoo xam ne sañatu koo wax waratu koo wax aussi même su fekkente ni les gens loo yëkkati ñu jéem ci def politique mais moom dafa dépassé loolu mhm. parce que moom war na bokk ci ñiy gën a dëgëral yoon dëgëral loi yi fi nekk ndax loi yooyu moom ñoo koy ñoo koy ñoo te ñooy gën a dëgëral institution bi nga xam ne moom la jiite muy le gouvernement du Sénégal alors loolu je pense que ni bokk na ci li tax coow am ci malheureusement assemblée nationale tamit réagir mais réagir. ci hmm. anam boo xam ni man jàpp naa ni itam. waruñu hmm. ko woon def pourquoi renvoyer le ministre du budget. Hmm. pourquoi. mooy bi ñu war a def débat d'orientation budgétaire bi. pourquoi ñu renvoyer ñoom dañuy fayante ak le premier ministre. mais mais mais parce que assemblée nationale. mais ñoom institution lañ boo xam ne si ils n'ont pas de d'ordre à de recevoir du premier ministre. kon binaaw gis nañ mu bind ci Facebook bi. loolu c'est pas une communication officielle donc ñoom. bu leen intéressé woon noonu mën nañ ko saisir ne kon yow ndax yow yaa wax li mhm. mais une institution. Mhm. dafay xaar ñu saisir ko ci mbir. officiellement officiellement. Mhm. mais gis naa ci euh, euh, euh, lëndu kii gi rek. nga réagir jël poser act bu toll loolu vraiment man je regrette mais yaakaar naa ne loolu war nañ ko weesale seen bopp. alors kon ñoom qu'ils reviennent à la raison. d'autant plus que même dégg naa ni waa PDS. introduire une proposition de loi. tout à fait waaw alhamdulilah rabbil alamin donc nañu jooyante mbir mi rek. Mhm. su ko defee bu fekkente ni assemblée bi àggul ci terme bi nga xam ni moom la ko président mën a tase. Mhm. ñu recevoir le premier ministre. Mhm. mais mu ñëw def déclaration de politique générale wax moom li mu gis. wax lan la bëgg ci réew mi. wax fan la ko bëgg a jëmee. wax naka la koy jëmee de manière aussi sectorielle et explicite. mu leeral loolu ñoom ñu déglu ko poser ko ay question ñu càmbar ko. ñu defal ko askan wi yëpp je pense que ni loolu mooy li ëpp solo. Mhm. ci ay tiraillement ak xëccoo parce que dañu sonn ci politique bi kanam. tout à fait nañu xam ni le Sénégal. Mhm. en fait transcende. leur mhm. personne. waay suñu jëmm yi. ana Mamadou Dia ana Senghor ils sont partis. am déet. te ñoo yoroon doole ji à un moment à un certain moment. alors comme ñoom nañu xam ni Sénégal moo ñu ëpp solo. nañ jiital Sénégal te jiital intérêt Sénégal. Mhm. pour le bien-être des populations sénégalaises. parce que population yi sonn nañu quoi mhm. vraiment. d' accord euh, assemblée nationale la ñuy ba tey. Euh, mhm. professeur. oui euh, loi d' amnistie bi ndax fa la jaar gis nga ko <laughs> mooy li ñuy waxtaanee léegi rek. yow da ngaa bokk ci ñu jàpp ne loi boobu dañ ko war a abrogé lu tax lu tax loolu. la loi d' amnistie. Hmm. d' amnistie nga ko tuddee. <laughs> oui. Hmm. nekkatul loi d' amnistie c' est une loi d' amnistie. d' amnistie. oui c' est une loi d' amnistie. pourquoi. Alors, euh, la loi d'amnésie, ou la loi d'amnésie, mm. Gaïni, l'effet de février 2021, mm. ba février encore 2024, nañ ko fàtte effacé nañ ko et il s'est passé des choses extrêmement graves dans ce pays là. Hmm. gis nga sëñ Socé euh, man cette loi là bu fekkente ni revenir uñ ci réglé ko. Hmm. kenn mënumaa wax ni dañuy def rupture ma gëm ko qu'est-ce qui s'est passé hmm. à un moment donné de la vie xam nga boo demee ci article sept ba article seize bu bi moom mooy titre de deux bu constitution bi dafa leeral lépp loo xam ni mooy àq ak yelleefu askan wi citoyen sénégalais yi hmm. dafa wane ni la vie du citoyen est sacrée l'État a l'obligation de la protéger cette villa ñu dem ba gis de sénégalais yoo xam da ngay génn fii ñu dóor la bal. combien de sénégalais sont morts est-ce que xam nga nombre bi man xaw ma ko. Hmm. et ces sénégalais-là sont morts et ils seront morts impunément parce que tout simplement kenn xamul seen yaay kenn xamul seen papa. kon y a des sénégalais. bi ñuy protéger ak bi ñuy protéger il y a un sénégalais qui se croit être au sud au-dessus de la loi et des sénégalais qui sont au-dessus de la loi des sénégalais yoo xam ne bu ñu sàccoon ginaar kese danañ tëdd kaso te mën nañ leen a mën nañ leen toroxal. Hmm. par contre y a des sénégalais yoo xam ne bu ñu sàccee ay milliards dara du leen ci fekk. y a des yoo xam ne am nañ droit de vie et de mort ci yeneen seen moroom sénégalais. Hmm. et on laisse passer te c'est fois. Senghor a eu son lot de tués et je dis toujours que Senghor est le Sénégalais le, le président le plus criminel de l'histoire du Sénégal il a tué en un seul jour en tout cas officiellement mhm. plus de 40 Sénégalais mhm. d'autres sources nous parlent plus d'une centaine de Sénégalais Senghor pour lan ñu ni sax ñëw na ji à l'occasion d'une fête toog am ñu ni ku ni génne na fital dañ ko doon jéem a rey ñu ne kooku kon nañ ko rey moom mhm. mooy diggante mag Mamadou Dia coow la wala. ak euh, euh, kii hmm. am na ku sant loola ñu ne woon da ko doon jéem a ah après ñu exécuté ko. c'est ça moom mooy kan ba tentative de mort ñu war a exécuté. droit de vie. Euh, mais ab élite lañu boo xam ni ñoom dañu nekk fële ci kaw di ñu xool bët boo xam ni bëtu xeebeel la bëtu ñàkk nawloo la te pourtant fa ñu àgg askan wi ñoo leen fa yóbbu mm-hmm. Abdou Diouf bi mu ñëwee yaayu beaucoup de tués mm-hmm. au Sénégal mm-hmm. événement malheureux policier yi sax. nit ñu bari ñoo ngi koy fàttaliku. <laughs> ces événements kii. y a eu même un juge naa ci histoire personnelle ndax man sama bokk na ci policier yi mu dàqoon. <laughs> ah bon ah, waaw man moom histoire personnelle la loolu. <laughs> ma loolu. Mhm. a eu un juge constitutionnel qui a été tué. tout à fait. sous le régime de Diouf. Mhm. sous le régime de Wade ne serait-ce ci bi muy jeexal nii rek y a eu beaucoup de Sénégalais qui été tués. Mhm. mais sous le régime du président Macky Sall depuis février 2021 ba léegi nii parce que y a eu des tensions parce que problème am na rek mhm. des Sénégalais doivent en mourir pourquoi c'est-à-dire man loolu mooy li ma jaaxal pourquoi hmm. le jeune là bi ñu rayoon euh, fii ci buntu commissariat pour police bu Parcelles Assainies hmm. dafa mel ni man xam kooku dama ko xam te yàlla xam ne ne xaw ma ko c'est-à-dire image boobu dafa resté gravé ci man toujours. Mm. à chaque fois dafay défilé wu ci man. taxaw jël drapeau Sénégal. Mm-hmm. ñu gis un agent de la police ni ko tëll bal wala boo ko sol tenue policier. Mm-hmm. ba noppi dugg ci auto police. loolu ñu ne ñu bon amul benn problème parce que kooku sénégalais la boo xam ne war na de parce que ndeyam ak baayam kenn xamu leen donc kon loolu ku anonyme la donc deewam amul problème. y a eu d'autres Sénégalais yoo xam si on parle de plusieurs dizaines de morts de Sénégalais entre 2021 ak 2024 parce que am na ñoo xam ne amoon nañ un différent rek des Sénégalais peuvent euh, mourir mm. loolu nag dama il faut au moins ñu éclairer élucider événement yooyu mm. ba xam qu'est-ce qui s'est passé parce que nit yaa ngi jàng toujours ci sa vécu ci sa démb suñ ko jàngatee ba xam leeral mbir mi lan la mm. non pas sax ci dynamique gu teg kenn lu metti wala ay euh, tëjëk di toroxal